defoon tey euh, ci tur madame la ministre madame Mariama Sarr euh, rencontré monsieur le préfet département de Kaolack bi may nuyu nuyu bu baax di ko encore ziar ñëwoon tak tey ci seetsi ko ngir indi suñu suñu suñu contribution bu néew ci wàllu xeex feebar bi ñuy xeex fii ci réew mi euh, mbir la ma xam ne bi mu tàmbalee ba léegi ñëpp engagé wu ku nekk yaa jàpp ci nañ ci mane ngir rek yàlla jëlee fi feebar bi nga xamante yi moom moom a bloqué réew mi bloqué aduna bi yëpp ndimbal bi nak ndimbal bu neew la dañ ci joxon 1000 litres carburant parce que bu ñu encore carburant parce que tay ji dañoo yok ko feu bi ci waron yam wessu nako donc buñ ko yokkee nak forcer dépense yok donc carburant bi dafa yok yokkuwaat donc ñoo xam ne daal vraiment ci suñu xam-xam bu neew war na ñew dimbalé leen ci walu carburant indi war encore encore témer paquet ndox ndox mi aussi pour wéro koor bi la parce que koor gaangi ñew tay ji ñun bu nekk suñu kër di ndogu policiers yeeg gendarme ngi ci mbedd mi di ñu aar donc faw ñu xool aussi ñun aussi nu ñu mën a accompagner ci wàllum ndogu pour au moins bu ñu nekkee ci mbedd mi di liggéey si def seen seen liggéey mu leen jàppale pour pour ñu am ndogu loo xam ne vraiment dina nekk ndogu lu mucc ayib. loolu encore demoon naa encore commandé ay masques ci tailleur tailleur Kaolack gi parce nañu dem Dakar mais dañoo ne au moins tailleur yi comme temps dëkk bi neexul ñu jox leen benn financement boo xam ne ku nekk ci ñoom dina mën a produire ay masques ñu tey jëbal ko préfet tay tay ñu commandé won 1500 masques mo nek ni tay ko jégal préfet ngir rek nit ki ko xamné yow man nga da nga bëgg génn sa kër te gi sax génnut bu nekkee amo dara lay wurt ci bit togal sa kër bu dee soxla bi tarna ba jàmp na ba gën aussi nga mëna sol sa masque loolu ci ram moy dimbalé suñu suñu suñu autorité yi mooy dimbalé encore suñu euh, suñu médecins yi nga xamné tay tay tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci walu ci walu fièvre bi donc euh, du ma aussi jeexal te remercier wu ma monsieur le gouverneur ak le préfet du département de Kaolack ci liggéey bi ñu def bi xeex bi tàmbalee ba léegi liggéey la bu ñëpp rafetlu ci seen biir taxawaay ñëpp lañu giseen sëriñ si euh, chauffeur si leader d'opinion yi tailleur yi amul kenn ku ñu bàyyi ginnaaw bojj la wala ngir ngir rek seen liggéey mucc ayib moo tax yàlla musal na leen tey jii Kaolack amagul kaa loolu nag amagul laay wax tax nag ñu war a gën a farluwaat. taxawaat ci euh, moytu yi nga xam ne docteur ñu ngi koy dégle mooy maanaam les barrières de sécurité ñu taxaw ci moytu génn yu bari raxas loxo yi sol masque yi bu la dañuy génn am aussi encore gel aussi ñu ko jëfandikoo kaa ko la bu ñu ko defee Kaolack mën naa mucc ci feebar bi. xol bu seddati euh, tey nag ki seral suñu xol euh, mooy Amadou jàlloo mom mo yoré direction bi nga xamné mom la wax direction du renouveau du service public euh, mu ñëw tay seet ci préfet am lu mu yëkëti rek dama naan ci ay ngannaay yëkëti lenn ci ay ngannaay tek ko ci loxom ngir euh, réew mi ci xex bi nga xamné mom lu sumbu ci mbas mi ñuy wax Covid 19 muy xeex boo xam ne sunu xeex la ñun ñëpp kenn ku ci ne koo mën a doon ak foo mën a féete da cee war a dugal sa loxo ngir ñu mën cee am li ñu bëgg loolu la def tey yóbbaale nag ki nga xamante ne ni mooy jawriñam muy ministre bi yore fonction publique. waaye itam di meeru commune Kaolack yaakaar naa ne moom tamit ci ñi njëkk a jóg ci la bokk ngir def loxoom ci mbir mi tey moom mu ñëw tamit di ko feddali li may rafetlu nag mooy def dina am solo léeg waaye defin bi ak yéene bi ko lal mooy ëpp solo yaakaar naa ne defin bi mu def rafet na yéene bi tam rafet na ndax ñetti fan na moom la jëfee tey benn bi mooy mu ngi ni daf fi indi ndox xam nga dafa am yoo xam ne nit mën na ko bañ a xalaat ndax ndox ndox daf ñoo jege waaye moom mu ne naa indi ndox ndaxte danoo dëgmal koor gi bu ndog jotee ñun kenn ku ci ne yaa ngi uuf sa njaboot nekk ci sa kër naan ana café gi ana tàndarma bi waaye ci waxtu googu nag am na ku ñuy wax takk der bi moom mi ngi ci tali bi gisul soxnaam gisul doomam bu ko jottali kafe walla mu jottali ko ndox moom mu xalaat ne nag su boobaa nanu def ay matukaay ba ndox nag gën jaa gàtt ndox mën koo jege mu mën a dog su fekkente ne dafa woor yaakaar naa ne loolu gis-gis la bu sell bu am solo kon li mu fi indi ci ndox bu ngeen yabo ngeen japp ni dal ñi nga xamne ñom ñoy police ak gendarmerie bu ngeen yabo xamne ndox mi dal rek daanaka dana jël lepp jébal leen ko ñom ñu xol naka lañuy défé la ca dess moy lu tolloog 1500 masque mom la yëkëti tek ko ci suma loxo mu yëkëti lu 1000 litres ci carburant ne moko jappalé kurel gi nga xam mom lañ wax comité départemental de lutte contre l'épidémie xëy na ñu ngi nos di nocci jaadu na li mu def loolu la waaye carburant boobu itam ma taxaw fii wax leen ne bu yeboo ngeen jàpp ne la ci ëpp danaa ko delloo police danaa ko delloo gendarmerie danaa ko delloo service d'hygiène danaa ko delloo ñii di sapeur pompier loolu mooy kaddu yi ma ci bëggoon a wax